أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi àndaat ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ba tey ci suura ala imran ñuy jël tey ñeenti aaya aye 133 134 135 136 ñeenti aaya yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi nu ciy jàngal juróom ñaari mbir bi ci njëkk ci ñeenti aaya yooyu boroom bi lim ñi ciy jàngal mooy wujubu taajilu tawba wa adamu taswifi fiha li qawlihi taala saari'u borom yi li mu ñuy jàngal ci aay yi nekk sunu kanam li ci njëkk liñ ci war a jële mooy war gi yàlla waral gaawe tuub ak ñàkk koo yéexee ndax ci biir aaya bi ci biir aaya yi li aaya yi tàmbalee mooy gaawtu leen tuub kon looloo tax ab jullit war a bañ a yéexe tuub parce que dee day betti doomu aadama xamul kañ lay deewee xamul fu muy deewee xamul nu muy deewee léppan ci borom bi tabaara loxo borom bi tabaraka wa taala kon jullit na gaaw a tuub waxtu wu nekk minute yu nekk seconde yu nekk na xelu doomu aadama di dem di xëy ne mën naa dee léegi fi ma toog mën naa génn du ma delsi mën naa delsi waaye duma fanaan mën naa xëy waaye duma gont mën naa gont waaye duma yendu bis bu nekk sa xel di nekk ci dee su sa xel nekkee ci loolu kon lu ëpp ci sa dund da ngay tuub say bakkaar doo xëy te tuuboo doo yendu te tuuboo doo fanaan te tuuboo ndax borom bi moo woote ne gaaw leen ngeen def ko comme borom bi moo ne gaaw leen nag ñun luñ ci war a déggee mooy danoo war a gaaw loola tax benn boroom xam-xam mu ne yoon woo jaar teg nañ fa kuy limiter vitesse yi nit ñi daw yoon wu doomu aadama jaar rek teg nañ fa machine appareil walla nit kuy limiter vitesse yi léeg-léeg sax nga gis ku volontaire koo xam ne mooy nekk ci tali bi naan nii loxo yi di signaler nit ñi naan leen def leen ndànk ba mu des yoonu yàlla yoonu yàlla xam nga foofu lu ñu fa wax gaaw leen foofu amul yéex foofu amul wàññi vitesse départ rek ndax ku départul doo yegg fa firru ilallah daw rek ku yéexantu rek gars yi la ngaamu la jàpp la dootoo dem ci yàlla tabaraka wa taala kon gaaw a tuub yàlla daf ko waral ci ñun mu ne rawaa an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su'ila yenent bi alayhi salaatu wa salaam dañ ko laaj ab laaj ñu ne ko lan mooy kontaanloo yàlla mu ne ndaw lu tuub jëm ci boroomam yow yàlla lu lay kontaanloo mu ne ndaw lu tuub su doomu aadama nekk ndaw tuub dellu ci yàlla bu tuubee yàlla day wa malaaka yi ne leen xool leen sama jaam bi xam na ne maay boroomam dellusiwaat na ci man kon loolooy lu njëkk lu ñu war a jële ci lii ñu war a jàng tey ñaareel mooy siatul janna wa annaha maxluuqa al aana li qawlihi taala uiddat war nañu jàng ci sunu aaya yi nekk sunu kanam yaatuwaayu aljanna aljanna kër gu yaatu la waaye defar nañ ko ba pare de instant bi may wax ak yéen aljanna am na waajal nañ ko defar ko ba mu rafet waaw lu ñu defar la ndax yàlla woon na jibril ba mu ñëw mu ne ko demal aljanna nga dugg ñëwaat nga visiter après nga ñëw jibril ñëw dugg biir aljanna wóor ba mu neex ko mu génn ñëwaat ci yàlla yàlla mu ne ko jibril dem nga mu ne waaw loo gis mu ne yàlla foofu de dina neex a dugg boofu day hee ni ma ko gisee ni mu neexee ak ni mu rafetee yàlla mu ne jibril gisoo ko de kon duggoo delluwaat jibril delluwaat wëraat wëraat wëraat daal di ñëwaat yàlla mu ne ko jibril mu ne fii yàlla kenn du fi dugg kenn du fi dugg yàlla mu ne ko jibril lu tax mu ne ko miir bi daa kawe gars yi duñ ko mën a yéeg miir bi nga ko miiree dafa kawe gars yi duñ ko yéeg yàlla mu ne jibril miir bi lan la mu ne ko makaarimal axlaaq jikko yu rafet yi nit ñi pour ñu am pour ñu dugg àjjana mooy foog ñu am jikko yu rafet te nit ñi seen jikko yu rafetul duñ dugg fii kon luñ defar ba pare la rawa an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su'ila ma damat aljanna arduha as-samawat wal ard qala fa ayna an-nar fa ajaba qailan subhanallah fa ayna al-layl idha jaa an-nahar qala hay insha Allah qala wa kadhalika an-nar تكون حيث شاء الله رواه بزار مرفوعا dañu laaj yeneen bi ne ko waaw yow yeneen aljanna de yàlla neen dafa yaatu trop lool ba tolloog suuf si maadaama aljanna noonu la toll kon safara fu muy nekk fu mu nekk moom yeneen bi ñu ko laajee laaj bi mu ne subhanallah sell ñeel na yàlla waaw yow ki laaj laaj bi su bëccëg ñëwee fan la guddi gi di nekk mu ne ko fu neex yàlla mu ne ko jeex na kon kay aljanna bu amee safara fu muy nekk mooy fu neex yàlla instant bi ci lan la nekk ci lan ngeen nekk ana bëccëg mi ngi fa neex yàlla est-ce que seen ñàkk bëccëg gi nii da ngeen cee sentir dara est-ce que fa bëccëg ba nekk ñooñu dañuy yëg manqué manqué yéen ñi guddi gi nekk da ngeen di yëg manqué manqué loolu yëpp ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala la maa sonn de du ci micro bi dégg nga kon aljanna mbokk yi dafa yaatu dafa yaatu dafa rëy te du fees te aljanna ñu tuuti ñoo fay dugg ndax yàlla moo nu ko wax sullatun min al awwalin wa qalilun min al axirin allahu qalil yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam téeméer boo jël ñaar fukki yi ñooy dugg aljanna téeméeri nit yoo konte ñaar fukki yi ñooy dugg aljanna téeméeri nit yoo jël ñaar fukki yi ñooy dugg aljanna allahu akbar téeméer boo jël ñaar fukk ñooy dugg aljanna aljana dugg fa yomb de moo tax yàlla ne da koy jaay aljana yàlla da koy jaay du lu ñuy maye du lu yomb moo tax eh, li sunu yenn kilifa diine yi di def fii dajale ay nit rek ne leen yéen ñëpp da ngeen aljanna waaw yéen ñëpp mbooloo mi ku fi teew rek texe nga wala saa nga gis ku ne ku ma gis texe dugg àjjana nit ñi di yuux allahu akbar dañoo jàngul rek yàlla neen àjjana dama koy jaay inna allaha lan la teg ishtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wala loolu la yàlla yàlla leen àjjana dama koy jaay te ñaar laa koy jaay alal ak bakkan yonent bi bi muy wax aljana dafa ne ala inna silata allahi xaaliya marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer ñu ne ko lan mooy marchandise su yàlla mu ne ala inna silata allahi hiya aljanna marchandise su yàlla mooy àjjana waaw àjjana àjjana tëdd nelaw mayewu ko ku bëgg àjjana da ngay jaamu yàlla da ngay nekk ci santaane yi bàyyi tere yi gis ngeen instant bi ñuy wax nii am na ñoo xam ne alal lañ bëgg rek alal tere as alal kese rek waaye xoolal lim leen jaral ñi jaral na leen ñu rey ay nit ñi jaral na leen ñu tukki ñi jaral na leen ñu taal guerre ñi taral na leen ñu taal daay kun gis na da ngay gis koo xamante ne dafa am kum bëgg ñu bañ ko ko may rek mu xaru ndax bëgg kooku waaw ñun ñu bëgg aljanna nag est-ce que aljanna jaral nan loolu li ngay gis koo xam ne dafa bëgg aljanna waaye bu ñuy nodd fajar mi ngi nelaw nga ni ko jógal julli ma waaw dégg naa ko a dégg naa ko yow moomoo aljanna de yee nga ma doy na moomoo aljanna yow doo yàlla de yow yàlla yónniwu la ci ñun de yow yaa yaa ñu sonal yow boo moomoon aljanna kenn du dugg te yow da nga ko ne jugal julli kese jugal julli kese am na ñoo xam ne balaa ngay ñuy am problème nga leen jóg leen julli wala jóg leen def li wala bàyyi leen li li baaxul waaw léeg nga gis kenn nga ne ko waaye mu ne la xalaa man rek nga gis ñëpp nag lu tax nga taamu ma allah non moo tax loolu moo leen di wan ne ñi dugg àjjana dañuy tuuti aljana dina am ay logement yoo xam ne kenn du fa dëkk safara day fees dal ba yàlla dëgg ci tànkam di ko bës pour mu gën a mu dugg aljana am ay appartement yu appartement yu kenn dul dëkk kenn du fa dëkk allahu akbar lu tax mooy gis ngeen dëkk bi xool leen rek Sénégal nu mu mel bu ngeen doon bu ngeen doon xayma xayma ngeen def sondage Sénégal ci l'islam fan ngeen di lu ngeen koy may point ngeen doon def sondage tawxid ak shirk ci Sénégal tawxid lu muy am 5 shirk lu muy am sunna ak bidaa bu ngeen ko doon sondage lu ngeen di may sunna bidaa lu ngeen koy may waaw al iman wal kufru ngëm ak kiifir su ngeen doon def sondage lu ngeen di may iman lu ngeen di may kufr mu nga kon nan ragal yàlla xam ne yàlla lii muy wax wallahi kenn munta fexe ba du am kenn munta fexe ba yàlla lii muy wax mu am kon ñaari aaya ngi ni yàlla dina woonu tuub waaye di ñu xamal ne aljanna dafa yaatu te luñ defar ba pare la ndax aaya bi moo ñu ne uiddat waajal nañ ko maanaam préparé nañ ko kon defar nañ ko ba pare defar nañ ko ba pare lan moo des moo tax gis nga bu nit faatoo ba nu denc ko ba malaaka yi ñëw laaj ko bu tontoo tontu bu baax liñ koy won xoolal càmmoñ mu xool ñu ne ko gis nga safaraa ngi ne fee moo nekkoon sa kër waaye yàlla changel na la ko aljanna sa kër mu ngi ne xoolal mu xool rek gis këram nekk aljanna firdaws mu bugg a dem malaaka yi ne ko déet teel na fii ngay nekk ci sa bàmmeel nga nelaw nelawu séet fee duggaguloo fi kon préparé nañ koo pare defar nañ ko aljanna dafa sotti instant bi ñuy wax xam nga lu des ñu ubbi rek nga dugg looloo tax yowmal qiyaam yonent bi mooy njëkk a ñëw ub fëgg bunt bi buntu aljanna dañ ko tëj koŋ koŋ koŋ ridwaan ne ko kokkan la ridwaan mooy garde aljanna mu ne ko man la muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow lañ ma waxoon balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare yonent bi daal di koy ubbil ridwaan daal di ubbil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon pare na kon lu ci des mooy nun dañ leen yàlla may ñu góorgóorlu ba dugg fa aljanna neex na de aljanna yenent bi nee na fiha ma la aynun ra'at wala uzunun wala xatara ala qalbi bashar li nekk aljanna bët su circulé ci wo- su circulé woon ci monde bi ba mu daj nga xam ne bàyyi woo benn ruq ci monde bi benn espace ba nga pare nga ñëw ñu ne la waaw léegi dugal aljanna maanaam du biir aljanna doo fa fekk lu mel ne àdduna la fa nekk bët musu cee tegu fiha ma la aynun raat wala uzunun samiat borom xam-xam yi dañuy nettali benn waay bi mujjee dugg aljanna mu génnee safara yàlla baal ko muy dugg aljanna malaaka bi ko doon yóbbu bi mu ñëwee ba ne ko fii mooy sa kër waa ji dafa dégg ay son yuy génn ci fleur yi ni leen ngelaw li di ëppee rek waa ji sujjóot mu ne ko lan la mu ne ko sama borom mooy wax mu ne ko lii ngelaw aljanna moo yëngal fleur yi noonu mu neex noonu moom nga dégg waa ji siggi ñu dem téeméeri mètre waa ji sujjootaat ñu ko malaaka bi ne lan la mu ne damaa gis sama borom mu ne ko kii urul ayni la kii sa soxna la sa soxna la yonent bi nee na urul ayni kenn ci ñoom bu dugaloon baaraamam ci géej gi yëngal ko géej gi dee saf suukar ah yéen saa ngi def dafay waay sama booy bi dafa neex neexul de ñi neex a ngi fële ñi koy dañ lay tere dugg àjjana léegi fekkee dafa am ay booy yu la tere dugg àjjana booy yële ñoo leen gën ah fekkee bi dafa am ay booy yu ñuy koj yële di ñu xañ aljanna nga la waay xool leen booy yële yàlla lépp seen lépp la wax seen lu tax ñu tuddee leen xuurul ayn lu tax ñu tuddee leen lool xuurun maqsuratun fil xiyaam soxna yi ak li ñuy nettali ci aljanna suuf si miir yi tabax yi lal yi xanaa jànguñu alxuraan wa ida raayta thamma raayta naiman wa mulkan xale yi rek boo yi nekk aljanna boo yi iza raaytahum xasibtahum lu'lu'an waaw léegi bu booy bi melee noonu patron bi nu mu war a mel kon yàlla wax na nu de ñun ñoo des yàlla wax na nu lépp aljanna nu mel nu mu neexee lu fa nekk safara ni méttee waaye ñun la ñun la ñun la ñoo ci des ñetteel mooy almuttaquun hum ahlul janna wa warasatuha bi xaq dañoo bëgg xam tey jii fii ñu toog ñan ñoo moom aljanna ñan ñoo fay dugg ñan ñoo fa dëkk ñan ñoo koy donn mooy ñi ragal yàlla almuttaquun ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna ñi ragal yàlla ñoom ñoo moom aljanna ñoo fay dugg ñoo fay dëkk ñoo koy donn kon ku bëgg a xam ndax di nga dugg doo dugg xoolal ndax ragal nga yàlla lan mooy ragal yàlla mooy def nga li mu tere bàyyi nga li mu euh, def nga li mu santaane bàyyi nga li mu tere jeex na yow boo nattee sa bopp évaluer sa bopp man ndax maa ngi ci santaane yàlla fan laa ci toll tere yàlla yi fan laa ci toll rek xam nga foo bopp balil insaanu ala nafsihi yàlla nee na doomu aadama xam na boppam walaw alqaa maazira même bu indee ngànt xam nga sa bopp waaw xam nga sa bopp xam nga sa bopp bu benn waaye ñëwee fekk la nga toog mu ne la yow milliardaire nga xam nga sa bopp wala yow yaa fi ëpp alal ci àdduna bi yow xam nga sa bopp wala bu benn waaye ñëwee fekk la nga toog mu ne la yow yaa gën a ragal yàlla ci nit ñi xam nga sa bopp ibnu taymiya kenn ci ñoom wala imam ahmad am na ci ñoom koo xam ne doo dootul dafa bàyyi nelaw guddi dafa jaar ci marché bi dem rek mu nekk benn waay ne ibnu taymiya yaa ngi nële du nelaw guddi mu ne inna lillahi ci xelam mu ne inna lillahi wa inna man ndeke ñu ngi may tuumaal ci mbedd mi du ma nelaw guddi te man 9 heures laay tëdd nit ñi xamuñu ma man ci la araamal nelaw guddi bu guddee mu nelaw ba bu julli ba guddi gi jeex am na borom xam-xam boo xam ne Sénégal fii la juddoo fii la màggi fii la yaroo fii la faatoo bi benn waaye moo ko ziar si rek daal di indi guro gu bëri guro ni ko damaa dégg yow sëriñ bi yow guro rek nga bëgg mu ne araamal naa ko ndeke man am na lu ñu may tuumaal ne moom laa bëgg ku dul yàlla bàyyi naa ko wala ñooñu nu ñu meloon kon mbir mi bu la jaralee foog nga def dara da ngaa bëgg am dara da ngay def dara da ngaa bëgg yàlla yàlla dala koy jaral da ngaa bëgg diine diine dala koy jaral da ngaa bëgg yonent bi yonent bi da ngay gis fi ay ay ay mbooloo ahibba ir rasul yonent maanaam yonent bi mboolem daayira fii ci Sénégal tudde nañu ko yonent bi da ngay gis sax benn waykat mu ne man yonent bi rek laay way waaw di jëg boo ko joxe mbir mu ne Muhammadu Rasulullah rek man yonent bi la waaye xoolal ndeysaan yonent bi jaralu ko dara est-ce que loolu mooy bëgg yonent bi bëgg yonent bi mooy ñu way ko dama leen di laaj téere yi ngeen téere bi ngeen tiim muy alxuraan fan la yàlla wax nañu way yonent bi woy leen yonent bi ndax ñëw na ci alxuraan bu ñëwee ana aaya bi ci ban saar la nekk woy leen yonent bi yonent bi sax yàlla da ko ne doo woykat alxuraan bii du woy wa ma huwa bi qawli shaair lii du waxu woykat yonent bi du woykat ma anta bi ni'mati rabbik bi majnun mbokk yi ñeenteel ci li ñuy jëlee ci sunu aay yi nekk sunu kanam mooy fadlu istimraari l infaq fi sabilillahi walaw bi qalil danañ jàng tey ngëneelu di joxe ci yoonu yàlla donte ne tuuti la jullit war na tàmm di joxe ci yoonu yàlla conférence bi ma yendu tey dama fa dégg benn xisa bu ma yéem benn jullit bu yàlla natt mu am feebaru asma yenn saa yi asma bi da koy piqueloo crise su ko dawee su ko dalee comme amul nag comme amul ay waajuram dañoo faatu dafa am kër guñ ko yar fay ñaan pour ñu may ko mu jënd garab gi pour mën a féex tuuti benn bis affaire bi dal ko comme léegi dafa yàgg ñaan di yàgg ñaan ba rus na mu jël ay yéreem di ko jaay pour am lu mu jënde garab gi ki ko doon jënd ne ko demal ba ci kanam nga ñëwaat mu dem te affaire bi daal koy daaneel mu jul ñëwaat mu faatu mu faatoo gars yi dem indi ay nag ñeenti nag takk te moom lan la doon wër pour jënd garab gi 6000 6000 la doon pour jënd garab gi xoola bi mu faatoo ñuy ni ñeenti nag nag bu ne ñaata lay jar loolu mooy Sénégal loolu mooy Sénégal ay nit yoo xamante ne ay téeméer moo leen di rey téeméer waaw ñenn ñi 250 moo leen di rey dañuy soxla 250 kenn du leen ko jox ba ñu faatu bu ñu dee nit ñi indi nag di indi ay nag cotiser nag waaw ñii dem indi ceeb ñii dem marché nduggi ñii luwe baas yi ñii dem jënd mbuusi ndox yi ñii dem jënd warga ñii jënd sukkar waaw ñii dem defari caakiri bi syndicat caakiri bi ñu dem defari ko waaw ñu ne dañuy koy saraxal bu ñuy reyee nag bi ñan ñooy lekk yàpp bi ñan ñooy lekk ceeb bi kanet yi ñan ñoo koy naan ñan ñooy naan ataaya bi ñan ñooy naan caakiri bi waa ji lan la jàpp ndax am na benn kudd bu ñu ko yóbbante ñu ne dañ moom moo ko moom te ñu wax dañuy noos rek dañuy wax dañuy noos bu nit dee ñu bugg lekk dañu ne dañuy noos moo nga ñu ne dañuy sarax beneen bi mooy est-ce que sarax boobu ci islam dagan na est-ce que yonent bi moo jàngale noonu la ñuy saraxalee ku dee Sénégal moom ku dee rek ñu ne foog ñu rey nag loolu moom fardu ayn la fii fardu ayn xam ngeen fardu ayn ah lan mooy fardu ayn mooy lii bu ngeen ko deful néew bi du dugg aljanna foog ngeen rey nag man de bu ma dee ku rey nag ku ci lekk rek yàlla nag mu wuy si waaw ku ci lekk ñoom de ñeen na wuy si ci bis boobu ñoom ñëpp ci kenn fanaan yooyu noos la loolu ab jullit na ko daw na ngeen def léegi seeni wasiya xaw ma xaw ma kañ ngay génn àdduna dafa léegi sa wasiya boo dee bu fa kenn def ay caaxaan waaw bu fa kenn noos bu fa kenn dajale góor ak jigéen ñi ñuy jëw rek di fen rek di jëw rek di fen rek di ut far ñii di ut jëkkër ñeneen ñi naan waaw jabar yi ku ci gën a rafet ñoom naan ñetteel bi la mooy ku ndaw ki ñi naan ñaata kër la bàyyi bàyyi na xaalis ñi naan ñaata ku nekk ku nekk di xool lu mu bëgg ñun yàlla yërëm yàlla mu ngi nuy tàmmloo ñu tàmm joxe tàmm saraxe lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti ab julit na miinal boppam joxe ci yoonu yàlla tey bu ñu doon joxe ci yoonu yàlla problème yu bari day rek lew problème yu bari julit yi am day rek lew waaye julit yi duñ joxe saa yoo gisee tey jullit yi di la di joxe mooy soraanoo lañu wootee woykat bi di woy gars yi di ko sànni xaalis bi ba kenn dootul gis waa ji ay billet 10 000 wala nga gis ñu yokko ñu ñëw di ko indil ay caabi oto wala ñu koy indil ay kayitu titre foncier seetaan leen seen kii bu bees bi nu mu tuddati grand théâtre xool leen ña fay tëgg ay anniversaire yépp ak ay soirée ay 4x4 la leen di indil ak ay titre foncier ak ay dañ leen di sànni xaalis ba kenn dootu leen gis fi ñu taxaw ci jamono yooyu boo demee ci hôpital yi gis koo xam ne ñu ñu 1500 ordonnance 1500 lay wër amu ko wala président moom la amul lu mu jëndee. bu demee hôpital Dantec ñu ne ko demal Fann bu demee Fann ñu ne ko demal principal bu dem principal ñu ne ko demal Grand Yoff bu dem Grand Yoff ñu ne ko demal Pikine balaa muy egg Pikine dee. parce que amul xaalis ci jamono yooyu ñu ngi fooy xaalis bi ci biir dëkk bi waaw boo waxee ñu ne dañuy def suñu anniversaire parti politique yeeg nit yeeg ñëpp noonu la ñuy def da ngay gis ñu jël xaalis bi di sànni naan xaalis bi maa ko liggéey waaw maa ko ñaq nu ma neex laa koy def bu ma neexee sax ma lakk ko gis ngeen ko ba tey ci jamono yooyu am na ñu ngi xiif am na ñu feebar am na ñu amul fu ñu dëkk am na ñu sonn allahu akbar ndeysaan ñun yàlla delloo suñu xel juróomeel mooy fadilatu xil xillatul kasmi al ghays bi tarkil mubadara ila tashfi wal intiqam tey borom yi dinañu jàngal ngëneelu wan na mer won mer nit mer denc mer bi ak bàyyi gaawtu ak bàyyi fayu jullit bu fekkee li muy wax ci moom dëgg la dafa bëgg yonent bi war ngaa jàng ci yonent bi wann mer kasmul xays wann sa mer zeynil abidin day jàpp jaam bi tiim ko di ko sottil satala gi satala gi daal di rëcc toj bopp bi mu xool mu naaj mu siggi xool jaam bi mu ne ko wal kaasimin al xays yàlla bëgg na ñi wan na seen mer mu ne ko kasamtu xays yi wan naa sama mer jaam bi ne ko wal aafina ani naas yàlla bëgg na ñi baal nit ñi mu ne ko afawtu anki baal naa la jaam bi ne ko inna allah yuhibbul muhsinin mu ne ko goreel naa la xoolal jaam yi démb yi dañoo mokkaloon alquran gor yi tey mënuñ dara ci quran jaam yi jaam yi jaam yi kon aaye dañuy jàngal wan na mer yonent bi alayhi salaatu salaam benn waaye ñëw ci moom ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab bul mer waaye ñëwaat ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab bul mer fa karara miraaran qala laa tax dab yonent bi ne laysa sadiidu bi siro innama sadiidu man yamliku nafsahu inda al xorab jàmbaar nekkul ku mën nit ñi di yenu di dóor ci suuf ku la tooñ nga sox di fëgg sa dënn naan duma seen moroom man fii ah déedéet jàmbaar mooy nga mer mën a maîtriser sa bopp ba doo def njaaxum loolu mooy jàmbaar mooy nga mën a maîtriser sa bopp ak mbir mi lu mu metti metti metti nga teey nga dal nga wanna sa mer waaw benn waay boo xam ne dafa ñaaw jikko ñu ngi koy nettali ci message aux hommes mariés dafa xëy fase juróomi jigéen ci cinq minutes mu fase juróomi jigéen juróomi jigéen la fase xanaa nit dina ne loolu nu mu mën a nekkee te nit jullit am ñeenti jabar waa ji juróomi jigéen la fase benn juróomi minute mu fase juróomi jabar beneen bi mooy fadlul afwi ngëneelu jéggale jéllale anin naas nga jëlal nit ñi baal nit ñi di leen baal waaw mutlaqan nga leen di baal muminun wa kaafir yéeféer ak jullit ñëpp nga leen di baal boo koy xoolal yàlla doomu aadama day nekk di def lu bon def lu bon def lu bon ba lenn rek xelam kii rek mu tuub rek yàlla baal ko yàlla xoolu lim defoon démb koy jéggal ci saasa fii nag yàlla dafa bëgg doomu aadama di jéggale di jéllale moo xam jullit la moo xam yéeféer la moo xam ku baax la moo xam ku kàccoor la nga koy ngay jéllale di ko baal juróom-ñaareel mooy fadilatul istighfar ngëneelu jéggulu yàlla di wax astaghfirullah wa tarkil israari anil maasi bàyyi tamit nuur ci mooy yàlla di ci continuer bañ a tuub di mooy rek naan jeune la xale bu góor laa naa bàyyi ba naa bàyyi ba xale bu jigéen laa naa bàyyi ba naa bàyyi ba loolu wóorul del jéggulu yàlla te tuub say bàkkaar mbokk yi juróom-ñaari mbir yooyu mooy li ñuy jëlee ci aaya yi ñuy jël tey bi iznillahi tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة wa jannatun wa jannatun tajri min tahtiha al anhar min tahtiha al anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin yaqul mawla borom bi nee na wa saari'u mu ne gaawtu leen waaye gaawtu leen almusaaraatu ila shay huwa almubaadara ilayhi biduni tawaan wala toroox gaawtu mooy jéem a daw def benn mbir bañ a yox yoxi bañ a yéex da ngay waaxu yàlla loolu la wax mu ne wa soori u gaawtu leen gaaw leen bu leen yéex ci lan la ñuy gaaw mu ne ila magfiratin min rabbikum gaaw leen ngeen jëm ci seen njëggalu boroom mooy sitru zunub gaaw leen yéen ñi bëgg yàlla baal leen ana ngeen ana ngeen yàlla mu ne gaaw leen ngeen ñëw ku bëgg yàlla baal la jógal jógal taxaw te gaaw gaaw leen wa adamil mu aaxaza biha nga bañ a yéex bañ a bloqué sa bopp wal muraadu huna al musaaraatu ila tawba nee na li ci yàlla namu fi mooy gaawtu jëm ci tuub bi tarki zunubi ci bàyyi bakkaar wa kasratul istixfaar bari looy wax astaghfirullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man de maa leen gën a ragal yàlla waaye saa yu ma xëyee dinaa wax téeméeri astaghfirullah ci beneen riwaaya mu ne dinaa wax juróom-ñaar fukki yoon astaghfirullah sahaaba yi nee nañ doon nañ koonteel yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn barab bu mu toog benn barab bu mu toog ñu koonteel ko ñu koonteel ko lu muy jéggalu yàlla ñaata yoon ci ay baat yu muy wax subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk loolu yonente bi sahaaba yi daanañ ko konte ay juróom-ñaar fukki yoon mu koy wax fu mu toog te jógul ndax jéggalu yàlla kon aaya yaa ngi woo ñu gaaw jëm ci sunu njéggalu borom jéem a tuub ila maghfira ci njéggal min rabbikum bu bàyyeekoo ci seen borom ak lan ngeen gaaw jëm ci aljanna wa jannatin arduha samawatu wal ard ngeen gaaw jëm ci kër googu tudd aljanna te mu tudd daaru naim këru xéewal aljanna kër la yàlla préparel ko ñan ñi ragal yàlla safara tamit kër la yàlla préparel ko kàccoor yi ak yéeféer yi moom aljanna nag daaru naim fawqa sama mi ngi kaw asamaan wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun aljanna asamaan la nekk mu ne wal musaaraatu ilayha nañu gaaw jëm ci aljanna takunu bi iksaar min alsalihat ku bëgg a gaaw jëm ci aljanna nooy def mu ne da ngay gaaw ci jëf yu baax waaw jëf yu baax gars yi ku bëgg kër VDN nooy def ndax am na ci biir jumaa ji ku ma mën a toon ku bëgg terrain VDN fii ku fi bëgg terrain VDN bëgg nooy def ut xaalis de mu nga ut xaalis bu bëri te xam nga moo loon koy may bëgg nga R plus 3 bëgg nga ko nooy def. liggéey rek ah aljanna nag. ndeysaan jaamu yàlla rek jaamu yàlla rek leneen mu la wéy ni kenn du la taxañal fa la aljanna naan la mu ngi nii kado am may nañ la aljanna comme ni ko gars yi di waxee yooyu amul de kuñ fi ne toogal aljanna ngi nii yomb na barki démb sama benn goro yaakaar naa ñëw na tafsir dafa demoon ba dëj maamam moo faatu ñu yóbbu ko benn dëkk suuli ko bi mu demee sëriñ bi mu ne waaw jox nañ ko kilifa gi moo ci des léegi lu ko neex moom moo koy def moom daal li mu mu xoon def na ko mooy bu dee nañ ko ko indil comme indi nañ ko nag teg nañ ko ci loxoom ñu bàyyi ko léegi dina ko yóbbu ci yonent bi ant bi jox ko yàlla yàlla yàlla jógal ko aljanna waaw ndeysaan Sénégal a ngi noonu de ku dee rek ñu ne indi leen boo indee rek buñ ko suulee ñu ne jox nañ ko kilifa gi dina ko jox yonent bi yonent bi dina ko jox aljanna dina ko dugal aljanna ndeysaan Sénégal a ngi noonu de waaw waaw fii moom kuñ fi suul rek texe nga fii fii xaw ma fan de waaye fii kuñ fi suul rek yaa ngi aljanna ah allah loolu wóorul de loolu wóorul xam nga lu wóor mooy jaamul yàlla loolu daal mooy li wóor nan jaamu yàlla bu la ku la bañ a nax daal na la wax nan jaamu yàlla loolu moo wóor boo jaamu yàlla foo faatoo baax na kun la suul bu fekkee baax nga nga duggi aljanna ak fu mu mën a doon waaye nekkal ci loo neex rek boo dee rek bu nu la fa yóbbee rek nga dugg aljana même bu fekkee kàccoor nga woon bandi nga sax àjjana nga jëm ah day na waar de borom bi nee na ngeen gaaw tuub jëm ci njéggalu yàlla jëm ca aljannaam ji mu digge nga xam ne yaatuwaay bi tol na ne asamaan ak suuf allahu akbar uiddat xaroo nañ ko dencal nañ ko kan huyi at waajal nañ ko wa uhdirat teewal nañ ko fa hiya mawjud al an muhayyaa mu ngi instant yi may wax ak yéen lu am la lu ñu préparé la defar ko ba mu rafet di préparé jaamu yàlla yi ne leen gaaw leen ngeen dugg yàlla ne na ngeen gaaw kon aljanna am na waaye ñan lañ ko dencal mbokk yi uiddat lil muttaqin yàlla nee na dencal naa ko ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal inna allaha ma al muttaqin ñi ragal yàlla problème bu ñu am yàlla intervenir génne leen ci wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ñi ragal yàlla ñoom yàlla den di bàkk baal seen bàkkaar wa man yattaqillaha nukaffir anhu sayyi'atihi wa nu'azim lahu ajra ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal inna allaha ma'al muttaqin ñi ragal yàlla ñoom la yàlla di nangul seen jëf innama yataqabbalu llah min al muttaqin ragal yàlla googu nag ñun ñëpp lañ ko sant ya ayuha alladina amanu ya ayuha alladina amanu taqullah حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد nit ñi ci àdduna bi nga xam ne duñu ay julli sax yàlla sant na leen ragal yàlla yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum inna zalzalata saa seyun azim ragal yàlla ñëpp doon ko sant yonente bi sax yàlla sant na ko yaa ayuha nabi ittaqillah gis ngeen ba pare yàlla bi mu bëggee ñu ragal ko dafa daf ñu indil ay mbir yoo xam ne suñ ko defee rek ragal yàlla julli ci la bokk koor ci la bokk aji ci la bokk tabaski ci la bokk yépp ay aaya la yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum fatazawadu fa inna xayra zaadi lan yanaala allahu luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu foofu tabaski la yàlla nee na bu ngeen tabaskee ragal yàlla bu ngeen wooree ragal yàlla bu ngeen aje màkka ragal yàlla gis nga kon yàlla bi mu bëggee ñu def ko daf ñu indil ay mbir yoo xam ne buñ ko defee rek ragal yàlla kon jaamu yàlla day tax nit ragal yàlla al ibada yépp nag ya ayuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum kon ibada lu muy jëriñ nit mooy day tax nit ragal yàlla hatta ibada bi boolem jaamu yàlla boo def daf la yóbbu ci ragal yàlla kon buñ bëggee ragal yàlla yàlla dencal ñu aljanna mooy nanu def li mu santaane ñu bàyyi li mu tere mu ne ñu ragal yàlla nag ñooy ñan yàlla mu ngi wax ñan la mu ne allazina mooy ñi nga xam ne yunfiquna dañuy joxe fi sorroi ci lan asarra alxaala almusira wa hiya alyusru walghina waddarra alxaal almudarar yàlla nee na gaa yi nga xam ne dañuy joxe seen alal bu yombee ak bu méttee fil sarra mooy bu yombee wa darra bu lor amee ñoom dañuy taxaw rek di joxe bu alal ji yaatoo ñu joxe bu problème amee ñu joxe waaw ñoom tooguñu de di nëbbutu nit ñi di changer ay numéro téléphone waaw di changer ay dëkkuwaay wala ay gardien nangam ak nangam kenn mënatuma gis dama amatuma temps waaw dootoo dem jàkk am na fi ñoo am bu ñu amee xaalis dootuñ dem jàkk ndax dañ naan dañ may gis fa dañ may ñaan dañ may ñaan dañ may ñaan ma sonn dañ may recevoir par suba sonn naa doo sant yàlla yàlla romb ñëm may la su la boole woon fii rek ah bu yàlla boole woon ci ñi ñàkk ñi ñi xëy jaar ci mbedd yi bu la fa yàlla boole woon nag du yàlla moo la romb ñëw jox la kon santal yàlla wa amma bi ni'mati rabbik borom bi nee na allazina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe fi sarra'i ci jamono yomb yomb wa darra ak jamono jafe-jafe ak ñan mu ne wal kaazimiina al ghayz ak ñi nga xam ne bu ñu meree wan na seen mer ñi ñëpp ci ñu ragal yàlla lañ bokk yàlla day wax seen melokaan seen melokaan ñoom ñi ragal yàlla li ci njëkk mooy dañuy joxe seen alal ci yomb-yomb ak jafe-jafe bokk na ci seen melokaan ñoom ñi ragal yàlla bu ñu meree kenn du ko xam allahu akbar wal kaazimiina al ghayz am na gaa yoo xam ne boo leen xoolee rek soo bëggoon yendu seen kër sax nga ni assalaamu aleykum buñ la fayee rek nga ni waaw dama fee jaaroon rek doo fi doo fi yendu tey de ndax kanam gi nga xool rek waaw moo tax sawaratoo waaw sawaratoo nga ni waaw man dama fee jaaroon rek dama nga jàm ba beneen yoon fekk amaana sax fu sori nga jóge woon julli du mel noonu yàlla li mu taggee yonent bi mooy da ko ne boo ñàngoon xat xol kon ñii wër la duñ la wër yonent bi cent vingt quatre mille personnes la la géré woon ay saxaaba cent vingt quatre mille yaa ne ko walaw kunta fazzan boo nekkoon ku tar xaliisal qalb ku bon xol lan faddu min xawlika kon gaa yi duñ la wër nga mu ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum ci yërmande bu la yàlla branché moo tax nga yaatu nga xejoo ñëpp yonent bi ñëpp la xejoo woon ku baax ku bon ku yemamaat ñëpp ñëpp mu dugal leen ci penc mi ba ñëpp normal noonu lañ bëgg ab julit mel waroo xat xol waroo lëndëmal kanam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa tastahqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajihin taliq bul bañ sax ci lu baax nga dajeeg sa mbokk sax leeral sa kanam même boo amul loo joxe leeralal kanam ki firi ko yonent bi nee na boo fexee ba sa mbokk jullit muuñ reetaan yow saraxe nga nga fexe ba jullit ree rek saraxe nga kon jullit warul xat xol jullit meram ñu bëri waruñu ko xam xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam kañ lañ daan xam meram xam ngeen kañ suñu tooñee islaam ñu tooñ ñi xorma xotti xorma yàlla rek yonent bi mer na waaw waaw mais leneen boppam ak ñeneen waaye bu ñu xottee xorma lislaam yonent bi mer na bu ñu tooñee yàlla rek mer na waaw barki démb laay liir facebook dafa am benn cheikh bu tudd Khalid Rasi instant bi may wax ak yéen dañ ko tëj kaso 15 ans xam ngeen lu mu def da doon défendre yonent bi bi waa Danemark xasee yonent bi mu def benn xutba nguur gi daal di koy jàpp tëj ko vingt ans am pape bi doon saaga yonent bi ñu may ko cent vingt millions dollars ñi do ñi tëj sëriñ bi ñoom ñoo may pape boobu cent vingt millions dollars kee doon saaga yonent bi ñu may ko cent vingt millions dollars kii doon aar yonent bi ñu tëj ko quinze ans fan lañ jëm fan lañ jëm àddina bi fan lañ jëm jar naa laaj fan lañ jëm ñun te ay jullit ñoo def loolu ay jullit ñoo ñoo may waa ji cent vingt millions dollars ndax dafa saaga yonent bi ñu ñëw jàpp kii dafa doon gaa aar yonent bi di riposter ñu tëj ko quinze ans ñu ne kii yow da ngay indi fitna yow yow da ngay yow yow terroriste nga yow yow fondamentaliste nga yow ñu tëj ko 15 ans Khalid Rashid yéen a ngi dégg ay xutba internet wala déglu leen ko 15 ans lañ ko tëj moom moo moom moo def film bu tudd Haza ma raaytu moom moo ko def na leen yàlla jubal wal kaasimin al ghayz ñi wan na seen mer wal aafina ani nnaas ak ñi jéggal nit ñi wallahu yàlla yuhibbu bëgg na al muhsinin ñi rafetal aaya bi mbokk yi fan la jeexe yàlla bëgg na ñi rafetal xoolal ci sunu borom sunu borom bokk na ci ay xéewalam ak mbaaxam bis bu nekk du jël mbir mi rek jagleel ko kenn ah bi yàlla di wax màndarga ñi ragal yàlla est ce que dafa am ku mu ko jagleel dafa ne ñi mel nii allazina yunfiquuna wala waxul ñoom diw dane allazina yunfiquuna amwaala yunfiquuna fi sarra wa darra ñuy joxe ci yomb-yomb ak jafe-jafe ñii wan seen mer ñii baalaate di baal nit ñi ñiy jéggal nit ñi di leen baal fu aaya bi jeexee mu ne yàlla bëgg na ñiy rafetal inna allaha yuhibbul muhsinin kon yàlla ñan la bëgg waxul ñi julli waxul ñi woor waxul ñi saraxe waxul yàlla nee na ñi rafetal laa bëgg inna allaha yuhibbul muhsinin lu tax soo bokkee ci ñi rafetal rek def yële kon nañ yàlla na yàlla boole ci ñi rafetal kon ku bëgg yàlla bëgg la rek mandargaa ngi nii de mooy lan deel def lu rafet ak ñan ñooy ñi ragal yàlla mu ne wallazina ñi nga xam ne iza faalu fahisha bu ñu defee lu bon ñu tarxiis juum def bàkkaar aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp fastaghfirullah fastaghfaru li zunubihim ñu jéggalu seeni bàkkaar gis nga de hmm? Hmm? ah zakarullah ñu tudd yàlla bu ñu defee bu ñu defee lu bon rek dañuy gaaw tudd seen boroom lan moo tax gaaw daal di jéggalu ndeysaan fi ñu defee lu bon ca la ñuy gaawee ndax seen conscience sax seen fit moo dul dalat da ngay dégg seen fit di tuf tuf yi ndax def nañ lu bon lan du leen bàyyi ba ñu daw jàppi du leen bàyyi ba ñu julli du leen bàyyi ba ñu sujjóot tudd yàlla jooy jéggalu ndax yàlla jéggal leen wallazina ñi nga xam ne isa faalu bu ñu defee fahishatan lu ñaaw lu rafetul bakkaar al fi'lu al qabih jëf ju bon al shadid al qub bon bu tar ka zina lu mel ne njaaloo wa kabairu zunub bakkaar yu mag yi bu ñu defee yu mel noonu ñu gaaw ndeysaan lan aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp bi tarkil waajib bàyyi li ñu waroon def wa af wa fi'lul muharram wala ñu def lu xaraam ñu daal di gaaw xoolal fii yàlla dafa ne ku def bàkkaar tooñoo ma de koo tooñ aw zalamu anfusahum mu ne seen bopp ngeen tooñ tooñu leen ma man yàlla zakarullah ñu tudd yàlla gaaw jéggalu astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar rabbi firli jéggalu seen borom zakarullah fastaghfaru ñu jéggalu li zunubihim seeni bakkaar yàlla mu ne wa man yaghfiru zunuba illa allah kan mooy bale bakkaar ku dul yàlla ñu nag ñu nag chrétiens yi duñ benn de chrétien yi bu defee bakkaar day dem ci pape bi wala mu dem ci cardinal bi wala mu dem ci abbé bi su ko defee l'abbé bi abbé bi daal di raay bopp bi daal di koy saxal benn tàngal mu ne ko yàlla baal na la sa bakkaar wala dañuy raay bopp bi nii daal di koy saxal benn bonbon ñu ne ko yàlla baal na la ah loolu nag la sëriñ yi jël tey waaw loolu la sëriñ yi jël jàpp naan leen nit ñi yàlla baal na leen te amuñ ci benn dalil te bàkkaar kenn du ko baale ku dul yàlla mu ngi ni wa man yaghfiru zunuba kan mooy bale bàkkaar ku dul yàlla yàlla nee na bàkkaar man maa koy bale du keneen du sàmba du demba da ngay gis fii koo xam ne dafa def bàkkaar dem di di nee xaaral ma dem ci sëriñ bi bu ma ko joxee dara rek dinañ ma baal xanaa sax nga demoon jox ko jàkka moo gën xanaa nga demoon sax jox ko miskin moo gën waaye nga dem ci ab nit jox ko dara ne ko tamaatooñ yàlla mu ne yàlla dina la baal c'est parce que jox nga ko xaalis bi yàlla bàkkaar yàllaa ko yàllaa ko moom de yàllaa koy baale du nit wa man yaxfiru zunuba illallah mu ne walam yu sirru nuuruñu continué wuñu ala ma faalu ca lañ doon def wahum ñoom yaalamuna fekk xam nañ gis ngeen bàkkaar ki ko yàlla di baal mooy ki ko def ñu xamal ko bàkkaar la mu tuub dootu ci dellu waaye samedi bu jot rek vendredi samedi bu jot rek nga baali vendredi nga nit dem xaaral ma dem àjjuma sax ndax tuub xaaral ma tuub quoi ndax samedi dama bëgg a baali quoi xaaral ma tuub wala xaaral ma woor koor gi quoi parce que après ma tuub ma def lu bon après ma tuub soo tuubee yàlla du la baal parce que xam nga ne lu bon nga bëgg a def aaya baa ngi nii walam yu sirru continué wuñu nuurunu xuusuñu gis ngeen yusaari'uuna ila tawba li anna al israr huwa ashaddu an shay yàlla bëggul kuy nuur ci bàkkaar di def bis bu nekk bis bu nekk nga dëkk ci wallahi boo fekkoon benn waay toog nga pes ko mu mu xool la nga ne ko baal ma mu sëgg continuer li mu doon def nga abbaat nopp càmmoñ bi tër mu sëggi nga ne ko baal ma mu sëggaat nga abbaat gauche bi foofu doo wax baal ma ci suuf la lay riñaan yëkkati ba ci ko dur su ne ko danga dof loo foog nga ne ko noonu dama doon jéggul ma ñetti yoon wala wala waaw léeg-léeg yow nga bu ko def ci yàlla ah semaine bu nekk rek non ay jéggalu jéggalu ay tuub semaine bu nekk nga tuub nga bëgg a tuub te di ko tey tuub ku tarxiis moo koy def koo xam ne da nga dëggoon xalu safara tey kenn ci ñun war nga génn jumaa ji ñu teg ci xalu safara mu teg ci tànkam bu tegee nu muy def teggi ndax day tegaat ah loolooy tuub loolooy tuub leer na de wala xam nga safara boo ci tegee tànk nu mu lay def da lay lakk est-ce que di nga tegaat mu ngoog xam nga ko tuuba ngoog loolooy tuub waaye mosoo gis ku teg tànkam ci xalu safara teggi daal ne xaaral ma tegaat waaye doo ko tegaat doo ko tegaat mukk ci àdduna ko tegaat mukk ko tegaat mukk ci àdduna loolu mooy tuub walam yu sirru continué wuñu ala ma faalu ca lañ doon def wahum ñoom yaalamuna fekk xam nañ ulaayika ñii dajale jikko yi yépp ñooy ñi ragal yàlla ulaayika ñii jazaauhum seen fay magfiratun njéggal la ku leen di jéggal min rabbihim mu bàyyi koy seen borom wa jannaatun ak aljanna joo xam ne tajiri day daw min taxtiha ci suufam al anhaaru ay dex kër googu ñooñu xaalidiina fiiha dan fay sax bu ñu duggee duñu génn éternellement lañ fay nekk xaalidina fiha wa ni'ma ajrul aamilin wa ni'ma baax na xéewal a ngi ajrul aamilin fayu liggéeykat yi ñi doon liggéey ñu ne ñu ana ñu daal mu ne seen fay a ngi nii lii laa leen fay ñi seen fay xéewal la wala du xéewal ah condition mooy liggéey wa ni'ma ajrul amilin ku liggéey rek yàlla fay la loolu moo doon darsu tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu nañ yàlla boole tiyaaba yi